الجلال عقل ما من كان يا يمين على الكتاب بالمستفيد ما جامل إني أمين الحمد لله حق المبين عن قلبي يا بيل على الكتاب بالمشابه آمين آمين الحمد لله أقل بين أن يا بيل على الكتاب بالمشتبه أجمعني آمين قولوا لا إله إلا بالله العظيم وكبيرته وكتابه ومع السمك برمي رب العزة جل وعلا أهديني رسول الله النبي الرحمة الرحمة المهلاة الجميل الشمس للمركب الجليل الجسدي للبكين للمرحق سنين kon bisu tey bi jotaay bi ñu toog ñu yaakaar nga néew di ànd ndoog yéen ñëpp di boole suñu xol di ñaan lépp lu mën a soq koo ci jotaay boo xam ne yàlla rek a tax ak lislaam ak ñi jiite lislaam yaakaar ko def suñu borom defal lu ko ci ba mën sëkk def mu bokk ci saw bi nga xam ne dañ ci takkal ëllëg ay garaat yoo xam ne ku ci bokkul ñeeru ci war may guddi gi ak nga xam ne moom lañu jagleel guddi gi mu ngi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaahu wallahu wa hafidahu ala nabii wa jazaahu Allah xayran kasiiran ma yantahi bi rabbil alamin yónnee ko suñu maamoon waxee dañu baaxoo woon di ma yónnee tem ma bind ko يعني يكون دي تسمحي يعني أنا لو بدينا أن تقريبا منهم بالتوقي في لدي يعني مع كسيمة من قيدة واختار أن يعني خطأي جوابي يقوم بتقف إيه،, إيه هو اللي بوحمني دانا وارا مانا سندي كي خلنتني أي لا يتون تتسنكم أتكتم منك exposé bi lan mooy war a doon maanaam itam maanaam turbaaram ne kon nañ ko def Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ak lislaam ku ne lislaam tudd na Cheikh Ahmadou Bamba ku ne Cheikh Ahmadou Bamba tudd na lislaam lislaam mooy réew moo xam ne ku ci dugg da nga ci war a duggee la réew ma laaj nga joxe ko nekk ko fa ويوم القيامة عند وقتين يفتح بلا يوم القيامة بلا يكيد الأجمع بلا أحمر لهم ولا يفتح نيت وقسم برم تبحي موي بان رك تفتي بوالي بيهم تدي الروح ولله الله وكسكرة بوحمد سنبرم تبارك وتعالى رك موكو خمد عارفوني ruux yooyu ñun ñëpp daje nañ ci ne ñaar yi kenn xamul lu ñu doon muy seen secret bu borom subhanahu wa taala mu di ruux ak xel xel xam nga ni ñu ni mu yëngoo ni ñu xamee ci cër yëpp nañu jëfe ba ñu xam doole na muy nekk ci nit te mun noo gis jëmmi doole ci xel gën koo yéeme gën koo réer ruux dikkati raw ko nit kat kon bu duggee ci lislaam te lislaam war koo jox meloo woo xam ne day dal di wuuteeg képp ku nekkul ci lislaam ak loo mën a làmboo loola di zahir di baatin zahir bi mooy yar yépp nit ki melowoo melow wu mel ne genn wàllu malaayika genn wàllu dundat li ci des di secret bi muy bi ma waxoon léegi mooy liy sax mooy liy des li fi jóge mukk ñu waxee ne suñu borom tabaraka wa taalaat bi waxee ci alxuraan ne bis bu ñu ëffee bufte bi lépp lu soobul yàlla léppay neen ñu lim juróom-ñaar yi nga xam ne nee ni ñoom rek ay des dañu arwaax yaa nga ca arwaax kursi yu aljana safara lawhul mahfuz al arwaax ruux min aalami lamri laysa min aalami alxalq lii defar roo ba mu dellu ca cosaan la mu cosaanoo woon di ko xam yàlla di ko jege yàlla di ko yàlla neex di koy bànneexoo leeri yàlla te benn tomb gàkk bu ca nekkee am lu mu wàññi ca bànneex mat ba kon dikku àdduna doomu aadama sas na ko sas wu baax lislaam na kon muy diine joo xam ne bàyyiwul dara ni mu mujj ñëwee ci diine yi nga xam ne dafa dem ba doom aadama ci yokk gi muy yokk ci wet gu nekk ci xam ci man ci pexe ci bari itte ci bari luy daje ci moom ak lu koy itteel bay dox diggam yàlla ba nga xam ne ci la gën a naqare defare ñu indi diine ji gën a mag ci diine yi muy defar doomu aadama muy l'islam suñu borom nag néew nga islam yi diina faral la ko bal men képp koo xam sax nga jënd diina ju islam nga ñëw fa kanam suñu borom ko nangu mukk ndax l'islam doo nga mën a defar mutu mujub jamono ñu ko sallallahu alayhi wasallam leerale ba mat mat l'islam nit ñu mu jaddit borom di di leen nege ay jamono yu diine ji dem ba ràpp ci xoli nit ñi mu di leen indi ñi bee salaat diine ji ci ay xol xol yi war a texe ba ñu mel na gën defar leen ñu jaddi doone yooyu ñu lim sallallahu alayhi wax ci hadis ne téeméeri at bu nekk suñu borom dana yebal koo xam ne mooy dikk beesal diine ji ci xoli nit ñi waxtaan nañ ko ba tey ñetti conférence ba ñeent yoo xam ne bu ci nekk loolu moo doonoon thème ba dafa yaatu bu ci nekk bokkul ak morom kon ci biir cadre l'islam suñu borom di sàkk jëmm yoo xam ne buñ ñëwee ñooy buntu bi yërmande yàlla ci kaw suuf ñu am melo woo xam ne moom lañ leen defleel ay charte yoo xam ne dara du ca manqué te ni ñu dikke fekk jamono gën a yàqu lañu gën a mate ndax ki gën a mën mooy ki mën a defar ki gën a yàqu ki gën a mën mooy ki fekk ki nga xam ne li jëm ci moom war koo yàq doole ju xajul fenn la amee ànd ak pexe yi xajul fenn booleeg matale mu dikk taxaw diggante loola di yàq ak li mu bëgg a yàq ba dàq ko ba mu dem ba duñ ko gisati mu far ko ba jamono dikkaat jeneen yoo xam ne su moroom war naa indi keneen mu nekk mu jëndit ulamaa yi lim nañu al mujaddid indi ay charte ci ñoom mujaddid bu ñëwee day doon nit koo xam ne day sell biir bitti ba nga xam ne aarifuuna billaahi yi buñ ko xoolee haala bi nga xam ne mooy mbir bopp nit nga xam ne nitu kese du ko gis mu mel ne li ñuy wax allo weer bu ñu naan weer yu feeñ ci na wër wër def cercle nga xam ne gàkk bu ca nekk lu mu tuuti tuuti dañuy jàlloog moom nga xam ne bu fekkee ne benn benn gàkk nekku ci xam ne xoolu nit ki kon mel na na gën na nga xam ne bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon ñëw du ca sikk dara du ca yedd dara kooku mooy ki nga xam ne mooy gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu ko fu mu ko neexee ndax sell gi mu sell kooku nag ci biir ñooñu la ñuy tànn mujaddid waaye mujaddid day fekk mu koo xam ne dafa boole alquran ak hadis xam ngeen ne alquran lu xóote lu jéggi dayoo la lu diis la waxtaane nañ ko ay yooni yooni yoon suñu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna sanulqi alayka qawlan thaqilan noo ngi wàcc ci yow wax ju diis ne لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يفكرون bu fekkonte ne alquran mu ànd ak secret ba aaya ji ànd ak secret bi wala benn baat bi ànd ak secret bi wala benn xaraf bi ànd ak secret ñu wàcce ko ci montagne ba gën a dëgër nga gis muy fett di toj ba mokk kon lu diis la sallallahu alayhi wasallam bu aaya daan wàcc bu fekkee mu wàcc gëléem gi gëléem dootu ko àttan bu gaawantuwul yës rek tànk yi dem bu tegee poojam ci pooju nit wala loxoom bu gaaw a xëcc pooju nit ka damm kon muy lu diis foor lu xam ne kon alquran dafa am lu ñuy wax ruux ni ki jëf jëpp jëf amee ruux ak yéene ni mu amee ruux nga xam ne ruux la ñuy peese bis ci ba ndax jëf kenn mënu koo gis jëf duñ ko gis amul jëmm bañ di ko peese waaye ruux gi lañuy ñuy peese alquran nag moom dafa nekkul mulki nekkul malakuuti jabaruuti la melo la ci melooy suñu borom bi tabaraka wa kenn mënul ne du yàlla kenn mënul ne yàlla fu mu jógee lu foora foora la Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam bu jubee yonante bi sallallahu alayhi wa ànd ak aaya ji rek yonante bi daal di soppi ko amee melow malaayika lu daal di mën a dékku secret aaya yi benn aaya rek dana wàcc ñaari aaya dana wàccandoo ñett aaya ba ci fukki aaya benn aaya it mën na wàcc gën gudd fukki aaya yi dajale ñu ne jëmm ci nga xam ne mooy ñëw beesal diine ji ci xoli nit ñi diine ci boppam du ràpp xoli nit ñi ñooy ràpp diine du màggat du yàqu xoli nit ñi ñooy yàqu boo gisee ñu naan diine yi ak addiyaanu samawiya maanaam religion révélée diine day dem ànd nag dund nit ña fa ñu tollu ci xam ci civilisé adduna bi tollu fi ñu indi leen diine ju tollook ñoom bu ñu demee ba yàgg ñu fàtte yokk wàññi ci tey ba diine ji dootu leen jël moom mel ne euh, léegi garab goo xam ne mënatu la faj ci feebar ndax dañ koo kooj yokk nañ ci wàññi ci li ci amul solo ba nga xam ne mënatu la faj nit ki fokk ñu indi kon garab gu bees tàq di ko fajee ci feebar loolu la diine yi mel lislaam di kon diine ji nga xam ne mooy faj ràggi doomu aadama yépp ràgg buñ ko dee wax ci diine du ràggu yaram docteur bi du docteur bi faj ràggi yaram yi ràggu xol la ràggu maanaam tilimaayu roo kon docteur bi nga xam ne mooy faj loolu bu ñu ko seetee dañu ci gis ay xaaj mujaddid moom wax nañu ne ay chartam boroom day sell sell gi ma waxoon xam alquran xam hadis nekk ku jub ku ñëpp wóolu di ko doy di ko xam ne diine ji ci leer xol gi nga am lu ci bokk rekk sa xol koy njëkk sib nga ci ko mujaddid yooyu lim lañ leen léegi nag ki nga xam ne moom la ñu bëgg a tudd léegi ci biir lislaam tey diit boobu daf cee am am gu mel ne ñi ñuy wax ne ka mujj ka ñuy tànn ngir yàqu ba yàqu yàqu ba gën a mag ka ñuy tànn nga xam ne moom moo koy mën a defar ni ñu koy tànne ci kattanu kooku ak man manam ñu natt ko ca yàqu yàqu ba du kon mu jëddi bu ne mën ngaa ñëw zaman def tëj jiit na ko mënoon a defe ñu ne kon sëñ tuba boo ko bu la neexee ka dugg ci tëj dig da nga wax a wax a wax a wax a wax ba sonn bàyyi te lu jeex du xaar nga dikk ci kumalul awliya yi nga xam ne ñoom la sun borom dénk secret yi gën a màgg ñu fab ñu àttan jaam ñi àttan seeni diis diis mën a faj seeni ràgg te luñ ci sonn duñ leen jàngal duñ leen defal dara jox leen ay secret yi wird yoo xam ne awraat yi benn wird bu ci nekk mu ngi jóge ci suñu borom tabaraka wa taala jaar ci jibril jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi joxal leen ko boppam ci waasita maanaam amul benn waasita bu neex ci bu nekk ci diggante bi jëmm ji day miin yonent bi sallallahu alayhi ngir sell gi mu sell ak set gi mu set ak farlu gi mu farlu suñu borom bëgg ko bëgg ga nga xam ne moo sut ci bëgg ko boromam mën a bëgg jaar mu takkoo yonante bi sallallahu alayhi wa sallam boole loolu am kàttanu ruu goo xam ne mën na ëmb ruu yi nga xam ne ñooy dajeeg moom mu ñëpp ci jamono suñu borom wóolu ko bu defee wér du ak ay chartam kooku nga xam ne dafay nekk xutbul xaw si su borom dénk ko secret wird ni ma ko waxe mu jaar ci jibril jaar ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du nek mu jaddit nu gis sen touba nek mu jaddit nek mu assu tariqa am sakay nu gis ne mu mu ñew ci mu jub jam fekk yaq yaq gëna bari gëna a naqaree dindi doom am anu lu bari lu koy xëccoo li nga xam ne mooy sell sellu lislaam dikk fekk li nga xam ne mooy yooni seytaane yépp ubbiku seytaane xam ngeen ne day gën a bari doole ndax day gën a bari su mboroom daf ko jox pay mu góor ak pay mu jigéen fu mu toll di booloo fu mu toll di jur lu dul jeex te kenn du ci noppalu xam ne seytaane waxtu lu muy noppalu li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen di yendal ndax seytaane kat du seytaane du yendal xam ne kon moom du noppalu mukk mukk mukk fu mu toll mu ngi yàqu am nag yu koy dimbali yoo xam ne mooy tax lam tëreewoon démb mu mën ko tey te li mu mën tey bu ëllëgee mu mën du ko ëpp te xalaatam yépp kàttanam yépp pexem yépp yàq-yàqam yépp ci doomu aadama la koy jëme ndax añaane ko bis ba nga xamee ne suñu borom tën na aadama ni ko sujjóot ci te mu jàppoon ne moom iblis moo gën ñëpp warula sujjóot ci kenn dañoo war di sujjóot ci moom waaye warula sujjóot ci kenn mu dal di añaane kooku ba ne suñu borom haaza allazi karramta alayya la in axartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna zurriyatahu ila qalila mbindeef mii nga fonk ba yëkkati ko teg ci sama kaw maanaam ba di ma loo ci moom boo ma yéexee bañ maa rey ba yowmal xiyaam sëtam yépp danaa leen jaarale ci yoon bi gën a bon mooy yoonu safara yoonu musiba suñ borom ne ko duma ma yéexale ba yowmal xiyaam ndax bu yowmal xiyaamee dee xewi kenn dootu de waaye danaa la yéexe ba ëfu bufte bu njëkk bi ëfu bufte bi ulamaa yi wut na ci ñii ne ñu ñaari ëf rek ñii ne ñett la xam ngeen ëf bu njëkk bi buñ ko ëfee ci la yawma yafirru l-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli mri'in minhum sha'nun yughniihi am na ñu ko dul fekke ñi muy fekk ci jamono kon xam ne ub nañu buntu tuub géej yi di tàkk asamaan yi ñu kukk lëndëm biddiw yi di fàq di dem di wëndeelu tiis woowale am na ñu ko dul fekke ñi nga xam ne benn tomb ngëm nekkul ci seen xol ñoo koy fekke ñooñu la tiis woowu yëpp di dal buñ fa jógee nag gannaaw jamono jooju nga xam ne mooy ëpp bufte bu njëkk bi ak bu mujj bi dañuy wax ne ulama yi dañ cee wuti ñii ne ñeen fukki at ñii ne téeméeri at bu fekkente ne dem nañ ba ci ëfu ñaare bi nga xam ne ci la ñëpp di dekki ñu daje ci béréb bi bu boobaa wujuhun yawma izin naziratun ila rabbiha ila rabbiha naziratun naziratun ila rabbiha naziratun wujuhun yawma izin basiratun tazunnu an yuf'ala biha fahisha bu boobaa ñi wax naan yawmal qiyaam kenn du tal kenn te dañoo jaawale waxtu yi ndax ay étape la am na jamono yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nangami bërëb ñetti bërëb juróomi bërëb ci wuuteeg riwaayaat yi kenn du tal kenn waaye loolu day weesu day weesu am na xaddis yu bari yu dul jeex yoo xam ne bu ñu ko waxee ngeen xam ne yawmal qiyaam la muy tiis tiis am na ñu muy ump li ñuy wax it xett li yawmal qiyaam ndax xett li gën a yombe xettalikat yi ndax ni ñuy xettalee fii ci àdduna mooy defar defar nit ki ba defar xolam ba dox diggante ak lépp lu koy lor xettali nag yowmal xiyaam moo gën a yomb ndax bu keroogee ba ñu a yawma taqulu unaasin bi imaamihim bu keroogee nee ñu yemul ci yonent yi ndax yonent yi seen bopp daañu wet maa ngi bëgg a euh, <laughs> jàdd yoon bi léegi nanu dellu ci <laughs> maa ngi bëgg a sori nanu dellu ci. Hmm? baax na d'accord yomal xiyaam kon bu fekkente ne jëmm yi dañuy woo yonent yi yonent bu nekk ñu taxawal ne la yow na nga def la yoon woon ci ñoom ndax wax nga wax nga leen li ma leen waxoon mu ne waaw waaw xeet woo de déedéet waxuloonu dara dañu waxuloonu dara. werante ngoog ana lu leen di àtte ñu ne jullit ñi Muhammad sallallahu ak jullit ñi ah, waaw yéen jullit ñi fekke wu leen ko lu leen wax ne yonent bi Moussa wala Ibrahima wala Isa wax nañu lañ ko yónni woon ñu ko dañoo jàng alquran suñu borom nettali nu ñi ngeen doxale xam ko ah waxi nag ku nekk gëm na ko xam ne nag rawatina booba rawatina ko waaye ba tey yow nag wa kullu unaas bi imaamihim ulamaa yi dem nañ bari lepp lo xamne nit siiw na ca man ko ña ca siiw ña ko man ñep ak ña ko bëgg ña cey top bu keroogee kookaay jiitu ñooña top ca ndax ñoo bok ben atte buñ fa jógee man na am na ci benen imam bu topati toppati lool yépp ram ay darajaat la dafa gëna am yu yéex am yu ne ci nit ba nga sonn am yu gaaw am na muy sukura ci sukura fokk nga xamne ba tey aaya ji nañu dana fi dellu sanurihim ayatina fil afaaq wa fi anfusihim hattaa yatabayyana lahum annahu al-haqq nit ki bu tolloo ci sukuraat kumpa yépp ay wuññi ko mu look sekkari yépp mboolem lu ñu ko doon wax mu gëm ko wala mu ñàkk koo gëm dana ca teg bëtam mu wër ko ne li ñu doon wax a ngi nii kat dekete diggante boobu waxtaane nañ ko ay yoon la fay xew suñu borom dong ko xam ay xew-xew yu bari mën na yàggee ci nit ki ne téeméeri junne at mën na gaawee ci nit ki ne xef yi nu bët xef xippi waaye bu boobaa bu jaam bi tolloo foofu alquran dafa ne wa kulla insaan alzamnaahu taairahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyamati kitaaban yalqaahu mansuuran doomu aadama bi li muy def li muy wax lépp bind nañ ko ci téereb xolam waaye lu tax nekk gi mu nekk matériel te matière du gis mukk spirituel li nga xam ne euh, borom matière bi bu demee ba nga xam ne rawxaaniyaam maanaam spiritualité am not na euh, jusmaan ya maanaam not na yaramam not yëgi yaramam ba nga xam ne ak leer gi ëpp na doole fuuf jëmm ji bu boobaa nga xam ne day jàndoog malaayika yi mën a recevoir malaayika mën a wax ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne lawlaa anna shayatina la yaxumuuna ala qulubi bani aadama la nazaru ila malakuti samawaati bu dul woon ne seytaane yi dañuy biiw xoli jullit ñi xoli doomu aadama yi kon ñuy jànloog malakut mu le royaume spirituel de Dieu ñu jànloo ko secret suñu borom yi ak yi xew yépp di jànloo ko malaayika yi bi mu nee bis ba mu nee ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waxtaan ngeen di ma déglu may waare ngeen di waaru génne seen xol ci adduna delloo seen xol ci yàlla bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen di saafoonteeg malaayika yi ci mbedd di Madina waaye am na ci saxaaba yi ñu ko def Imran ibn Husayn moom demoon na ba nga xam ne day nuyoog malaayika yi di leen gis te am na ko ñu bari ñu ko féete kaw xam ngeen xolofa aw larbaa ak ahlu saqifa al bayatu ridwan ci la bokkoon ñu doy waar lañu waaye bi nga xamee ne benn bi su suñu borom nattoone ko ab taab bu méttee métti mu dal dem ñaas ko ba mu ko ñaasee gisatul malaayika mu naqar naqarlu ko di ko jooy di tuub ba suñu borom tegati ko taab ga mu del di gisati malaayika yi mu bañ koo faj bàyyi ba suñu borom wéral ko jëmm ji nga xam ne ma ne kon ba rawxaaniyaam not na jismaaniyaam ba ëpp ko doole ba leer gi nga xam ne li muy yëg lu ko leer gi wan moo ci ëpp li muy yëg ci yaramam lu néew doole la te ay jamono lay doon day am jamono yoo xam ne du yëgati dara ci àddina du xàmmee suukar ak kaani du xàmmee safara ak ay jamono lay doon mënuñu ko continuer ndax yonent sax yonent bu mu doon bi gën a fort bu ñu ko tëjoon fii ay bés du lekk du naan mu génn àddina kon nit ki dana dem ci melaw malaayika waaye ay jamono lay doon jóge ca dellu si ci melaw doomu aadama li gën a bari ci jamono xam ngeen ne sax li tax ñu naan yonent day wàcc wàll yu day yéeg moo di wàllu fii mu ngi dund day gën a jege suñu borom di ko gën a xam yonent nag xam suñu borom ak jege ko ak bëgg ko la judduwaale mosul am kiiraay bi mu nekkee ci biiru neen bi mu génnee bi mu ñëwee ci àdduna lan mooy liggéeyam du ca génn moom muy defar boppam di di combattre l'âme charnelle maanaam di xeex ak bakkanam ak ak seytaane ak duniyaa déedéet loolu weesu na ko moom moom bu ñëwee jubal mbindéef yi rek mooy liggéeyam ndax moom àgg na ba noppi jëmatul fenn bi nga xamee nag kon moom euh, suñu bind na mbindeef yoo xam ne moo ñoom lañ tudde ku mënul awliya yi mooy ñii yéeg ba àgg ba tey nag ñii yéeg ba àggit daañu dellu si ñoom it ndax wàll yi dana dem ba nga xam ne bu àggee ci tëmkin dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne dara mënut koo tàggale boromam dara mënul la tee muy xalaat boromam wala mu di ko yëpp di ko mm, bànneexu bu boobaa day dellu siwaat nag moom it ba niroog nit ñi waaye ñennati wàll yi ñoo ci àgg buñ seetee mu jant doon yi ñu teg leen fii peese cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu ci yan bu mu leen gën a rëy la yan ndax nit ki kat fi kàttanam toll rek lañ koy yene yonente bi salaa sallam ne ñi gën a metti balaa gën a metti musiba gën a metti tiis ci yàlla bi mooy yonente yi gannaaw bu yonente bi ñi ci gën a sës ñi ci gën a sës ñi ci gën a sës ba ba ak agsi julli ci kese yi xam ne kon nit ku nekk suñu borom dana xam lam atal mu yel ko dana xam lam yello mu jox ko te du dugal dara fo xamne waru fa nek te suñu borom kat su ko neexoon mu wan la dara fi mu nekul su ko neexoon mu wan la dara fo xamne ne neeku fa man nañ ci am ay misal yu bare bare bari waaye dafay génn mawdu bi dem na ba ci bi nga xamé né ci zahir bo démé sét ci ñi wala nga sét les lunettes de Galilée léeg-léeg bu ci galaxie yooyu yëpp da nga naan ana fu course yu nekk waaye kiiraay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yëwat bi ne bi aay ji wàccee naan wa jannatu arduha ka ardi samaa'i wal ardi àjjana yoo xam mu ngi yaatoo asamaan ak yegg suuf yi ñu yahut bi ne ko waaw kon ana fu safaray nekk mu ne ko way xaka iza jaa fa ayna yakunu an-nahaar ah xanaa danga dox bu bu guddi ñëwee ana fu bëccëg di ne loolu mu ngi wane ne àjjana suñu borom mën na koo xajal ci sama ngëb bii sama loxo bii kon euh, loolu moom laa wax ne bari na lool ay misaal yoo xam ne dafay xamle ne suñu borom mën naa wane lenn fu mu nekk mën naa wane lenn fu mu nekkul ndax bu temps ak espace bu amatul béréb amatul temps amatul lu nekk mën na nekk moo tax ñi yéemu ci naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laylatul mi'raj bi mu demee ba ak ndax ruuxam rek a dem wala jëmmam a dem wala gént la loolu lépp ci bu ñu seetee ulama yi bari na si ñoo xam wax ju ci nekk wax nañ ko waaye lu ci nekk am nañu tegtal yu leer ci ne jëmmam moo demoon xëy na fii du place am ci TGP waxtaan misaal nañu euh, li nga xam ne mooy wane ne jëmmam bi ñu xàjjale l'isra ak mi'raj jógee madina ba dem Quds Jérusalem loolu ñu ne wala yenn si yenn ci ulamaa yu ne loolu jëmmam la woon waaye li jóge foofu ba xasratu Quds euh, ruuxam demul jëmmam demul wala wala gis-gis la maanaam vision rek bu ko suñu borom woon ay xanaa loolu bi nga xamee ne yéefar bi dafa ñëw ne ko Muhammad ne ko mu ne ko yow da ne dem nga asamaan mu ne ko waaw mu ne ko yëkkatil sa tànk bi mu yëkkati mu ne ko yëkkatil bi ci def sa tabal teg bi ah loolu mu mën ma ko mu ne ko yow mënuloo yëkkati sa ñaar tànk ñi bañ jóg bañ bañ bañ teqali ko ak suuf si nga ne dem nga asamaan mu ne ko déet bul juum mosuma la ne yéeg naa dama ne dañ maa yéegal laa wax mosuma la ne rañaana dama ne dañ maa rañaane loolu tegtal la nag bu fekkonte ne gént la ko dama ko gént gént moom ku ne xam na ko ku ne ñëppay gént bu fekkonte ne daf ne ko sama rooxa dem du leen jaaxal coow lii lépp lim wax ne moom ci jëmmam moo jaare Quds yéeg moo ko waral bu ne woon gént la weddi du am coow du am te amoon na ñu demoon bëggam nekk jullit te bi ñu waxee loolu seen xel mënu koo nangu ñu dal di euh, wëlbatikuwaat génn ci lislaam ndax suñu borom leen ah, kon ci na mu gën a gàtte rek tëj diit waxtaan nañu ay yoon li ay chartam waxtaan na itam ku mënul awliya yooyu nga xam ne ñoom la ñuy dénk ruuxi jaam yi jox leen secret yoo xam ne mu ngi ci biir wirde yi nekk ci ni nga xam ne noonu la laylatul qadr nekk ci biir weeru koor bi ni nga xamee ne saa si ñuy wax ci ajjuma ñu naan takkusaan la ñu naan waxtu sàngam la nga xam ne dañ ko nëbb muy secret yu rëy yu ci nekk ñu bëgg jullit ñi farlu di dàq waxtu yooyu ak saa yooyu di ci jaamu yàlla ndax loo ci ñaan mu nangu te jaamu yàlla gi nga ciy jaamu moo ëpp doole fuuf jaamu yàlla goo jaamu ci beneen bis wala weneen waxtu wala yeneen i jamono wirdi itam amee secret yu mel noonu xamle wuñ ko dul mu nekk ci biir wirdu yi wirdu yi ci nekk nag amee sa amee charte ki nga xam ne moo indi moom la jox wirdu bi wala yu bu ñëw indi woo may boo mën a am li ngay def ci nit ñi dana dem ba jeex waaye bu ñu la jot dañ la won ne dangaa mën a continuer ba ba saati taxaw feeg jullit a ngi am feeg ñu ngi lay gëm dëgg la euh, wàllu yi du ñu ñàkk ci jamono waaye nit ñi dañuy dem ba dootuñu yeyoo xam leen bu ko defee suñu borom daf leen def ñu nirootu nit ñi ba doo leen mën a xam ne benn tegtal li ñuy wax naan xam suñ wax na ko ci masaliku jinaan bi radiyallahu taala anhu ne xam yàlla mu gën a yomb xam wàll yu ndax wàll da ngay jànloog moom mu niroog nit ñi ci lépp niroog yow ci lépp di xiif di mar di fàtte di ñàkk di sonn di tawat di wér di bëgg lu mu amul di sàkku amul di ñaan mu bañ a nangu di ñaan mu nangu ba nga xam ne mënuloo ko ràññaleeg sa bopp ci lenn lu dul noorul basirati moo la ko mën a xam ne te am bari na ci ñoo xam ne noorul basirati mënu tax sax nga xam leen lu dul li nga xam ne suñu borom daf leen def ñuy buntu yërmandeem ci kaw suuf woote loolee nga xam ne ñooñu bu ñu xasee ba lañuy woote bu ñu ko wootee ku ko weddi mel nga day weddi nga yonent bi ko tubaa jox naan zimaamul wara asri ladallaahi fi yadi bu ñu wax naan ajru ladi nazaani walam yatul shaqawatun tadumu fi ummi kutub képp koo xam ne xëccoo man te tuubuloo ko sa pay mooy texee di bu ñu bind ca ndeyi téeree te di kenn ko fa ki nga xam ne nag suñu borom dafa xam ne kii moom weesu na yàqule weesu na lépp te xaritam la boo xam ne ca azal ñëm njëkk a tànn ca lañ bokkoon mu wóoru loon xam secret yi teg seen loxo wóoru leen ci jaamam ñi ba def ci xoli jaam yi ñu gëm ko ni mu waxe ne suñu borom jox na ma xoli way texe ñépp suñu borom nag sol ci moom yërmande joo xam ne lépp lu yàlla bind la yërëm lépp lu yàlla bind jàngal rahmaan rahim yaa malikal mulk yaa man jalla an qawadi irham jami al wara yaa haadi rada chariyan dañu ne ku jullit kenn sañu koo ñaanal texe bu deewee kenn waru koo jullee moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alquran dafa ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina loolu fu mu féete yërmande jooju xam xamul ne suñu borom tabaraka wa taala dafa am dafa melowoo rahman melowoo rahim rahma maanaam yërmande ji ñu xare ci rahman mbindeef yépp ci yëpp jullit ak yéefar ak luy dund te dundit ak luy naaw luy dox ci suuf luy wax ak lu dul wax ñépp la yërëm kenn ku ne dana la wërsëgal dana la aar ba sa àpp jot dana la aar ci lépp loo xam ne bind ko ci yow nga lii dana la dal xam ne qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allaahu lanaa wa huwa mawlaanaa yërmande jooju moom ñépp la ko boole mooy ñeenteelu mbëggeel bi nga xam ne bëgg na ko li mu bind ñeenteelu mbëggeel googu mbëggeel bu njëkk mooy ñi mu ñi bëggoon ca azal nga xam ne daf leen a tànn bëgg leen def leen ñuy ngir ñuy alali boppam alal moom nga xam ne alali yàlla lañu mu yonent yi ak aqtaab yi ñi ci tegu di ñoom itam ñoo xam ne ñoom la bëgg mbëggeelu ñaareel gi nga xam ne bëgg na leen fonk leen teral leen def leen ñuy way texe ba abadan ak luñ mën a def rek ak ci ay ci ay guñu mënee def saggan guñu mënee def bala ñuy dee rek daañu tuub dee ci ngëm te duñ deexaale mbañeel ci seen xol bu ñu dencal benn mi def mbëggeelu ñetteel gi képp ku dugg ci lislaam mbëggeelu ñeenteel gi lépp lu mu bind ci loolu la yàq xaraame yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko wattul yàq mu ne ko ah, ndox sax yàq ngi ci mu ne ko boo newoon ci tàkk géej ga di as ci géej gi di di jàppit yàq ngi ci ndax su borom daf koo bind xamuloo lu tax mu bind ko bind bi ko bind bu doon bu doon suñu borom bu doon bi def dañ ne daf koo soxla xamuloo lan la ko soxlaa boo ko aajowoowul waa su borom tàggatal na doomu aadama yi bind ma fa yëkkati na leen teg ci kaw yeneen bindee fi wala qad karamna na aadama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at kon suñu borom yëkkati na doomu aadama ndax ñooy xeetu yonentam bi waaye nag lépp lu mu bind mbëggeelu ñeenteel boobu bëgg na la ko ba nga xam ne boo ci amul soxla boo ko yàqee danga ko layoo boo rombee benn ñax béy woo ko dara nga ne ko xufet dagg ko ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lépp lu am rek mu ngi sàbbal suñu borom tabaraka wa taala ni nga xamee ne aarifoona billahi suñu borom dafa leen di feeñu ci bépp atome ci adduna même pepp suuf yi nekk ak pepp lépp lu am suñu borom dana leen ci feeñu fu ñu ñoo ñooñu nga xam ne àgg nañ foofu dañu naan ñoom ba pepp zarra ci ñoom moo ëpp darajey junni shahid aarifoona yooyu mooy aarifoona yee gën a kawe kon suñu borom tabaraka wa taala li tax mu bañ yàq li ngay gis di ko xeeb xamuloo lu mu doon boo demee secret bu réy nga ca biir ndax mu ngay sàbbaal su borom tabaraka wa taala te boo ko daggee wàññi nga leeru sàbbaa ga ndax jëpp jëf ju mu doon rek dafa am leer guy jolli koo xam ne leer ga ci la aarif bi xamee jëf ju ñu nangu ak ju ñu nanguwul ci lay xame aji texe ak ñàkk aji ñàkk texe ci lay xamee lu dagan ak lu daganul Muhammad ibn Arabi alfutaatul makki bu mbind gis njëkk bi fekk rek la mosu koo jàng waaye nee ko su borom lo lu néew lay doon dana di am dana di am ndax aarifoon yi dañoo bokkul ay naanuwaay kii day wax ay waxam du ko bokkaleeg kenn ndax xamu naa ne xëy na moom naan waaye su borom yi kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll moo tëpp suuf yi ak naan waay yu kenn dul naane ak naan waay yoo xam ne ñii rek a ci naan ak naan waay yoo xam ne ñii rek a ci naan nga gis kenn koo xam ne dana naan ci naan waay yëpp xutbul xaw fi rek mooy ki nga xam ne kenn ku ne dana bokk ak yow sa maqama bokk ak yow sa zawq maanaam sa gustation bokk ak moom liggéey yëpp bokk moom ba noppi nag doon na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kenn la mu yelle ci moom mu mujaddid yi dañuy beesal diine ci rek amuñu benn responsabilité ci nit ñi bàyyi bàyyi nit ñi rek ñoom ñu def seenu farlu ak seenu góor góorlu seenu jaamu seenu sàggan ak yooyu waaye nag gaa ñi nga xam ne ñoom la sa karam bi nag bu mag bi ni sëñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu noonu defar nit ñi ci baatin ak ci mënuloo defar ay nit fekk di rëy ci ñoom. mu seet murit ndax woyof nañu wala déet nga xamal gis fas ko yéene mel ne yaa ko fas ko yéene suufu bëgg gi nga xam ne ak gëm gëm ci boppam toujours di ko waxtaane naan mooy buum gi yeewu taalibe bi ci sëriñ bi ngëm gi ci boppam rek ngëm moom lu ama ama am solo la ki gën a foor bu doon yonente boo ko gëmul doo si jëriñu ki nga gëm nag wàllu bi gën a mën a defar nag mooy fexe ba nga gëm ko ndax mu gën laa mën a jëriñ benn euh, doomu aadama boo xam ne dafa nekkoon murid sadiq murid sadiq mooy lan mooy nga xam ne seet na ba xam ne suñu borom tabaraka wa taala màgg na màgg koo xam ne foor foor koo xam ne rëy rëy koo xam ne mbiram diis diis koo xam ne te ca inna aradna la maanata ala woon na wala rek suñu borom ne bu ma ñëwee àdduna ca yow ma alastu danaa la jaamu te duma la moy mu seet loolu ni mu diisee mu xam ne mënu ci dara mu xeeb boppam xam ne mënu la xettali boppam mënu la musal boppam mënu la texeel boppam mu jóg nag ne naa seeti ku ma mën a xettali kooku mooy muridu sadiq nga xam ne dara ci àdduna taxatu koo jóg xolam bi dara dul yàlla ak na mu muccee bu dikkee ci sëriñ bi ngëm ak cofeel mooy li koy gaaw xettali ci sëriñ bi ngëm moo jiit ndax bala nga koy sopp sopp ga teewaat gëm ko ngëm gi nag gis ngeen ni sëñ bi waxee ci message ko dinaan mu ni wala lu yàlla ñu bari ñoo xam ne boo leen woowee nga nekk fu gën a sori ca penk wala ci sow ñu wuyu la xettali la boo jàqee woo leen am si ñoo xam ne kii jege dina gën a mën a li ki ci ki sori am ci ñoo xam ne mënuñoo xeetali lu dul ko jege mu ne waaye nag taalib bi nga xam ne moo jàq di woo sëriñam bu fekkee ne dafa aju ci ki muy woo te rafetal ci njortam gëm ko suñu borom ci boppam moo koy wallu ci barke kooka comme ni mu ko waxee mu am benn ni ma ko waxee benn murid sadiq ci ñu njëkk ñëw àgg ci murid sadiq jóg ngir lu ko xeetali ngir ragal boromam dikk fek benn way bo nga xamne dafa siw lol nit ñi diko ziar ziare fi fii nekk duñ fi jox ba ñi mbooloo me dem benen mbooloo ñu mu dik jox ko bopam ni malade bi di jox bopam médecin bi ñi wax naan jeblu dafa aram jebal sa bop sa morom doom adama sa morom bi dem ñàkk xam la mané toujours mo wax ne bo tawate sax da ngay jox médecin bi da ngay koy jebal sa bop lu mu la téré do ko def lu la digal ngay def bu la ne bul añ doo añ bu reer doo reer bul nan do nan bu la ne summi sutu bay nga summi ko legi ki nga xam nak sa yaram na tawat mu diko fajj rawat na ki taw ki fajj ruux gi ko gëna a foor kooku gën a foor léegi eh, ki jëmm ji ñew gëm na lool ki nu fekk ci gëm na ko ngëm go xam na ngëm mu ko wessu ndakate yo ki mu gëm mom du dara du dara waaye mu gëm gi mu ko gëm mi ngi koy tërbiyewu lu mu ko sant mu def ko ànd ak rafet njort ak wóolu ngëm yàlla dogal ci gaa ñi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne eh, ñoon la eh, lu tasawuf fii ni ñu hiérarchisé eh, ahlu diwaan bi xutbul si bi jóge fi kenn ki ñuy wax alwakil moo ko waral a wóotu fu jóge ñaari imaamaan yi ñaari imaam yi kenn ci mooy dem toog place bu ko defee kenn ci awtaat yi nga xam ne ñeent la ñuy doon ñi nga xam ne ñoom noonu la ko waxee mooy remplacer kooku fa mu jógoon fa mu nekkoon benn place manqué fa ab daal yi nga xam ne juróom-ñaar la ñu doon ci àdduna ñu fab ca kenn teg léegi nag ñu seet ci jullit ñu baax ñi kenn koo xam ne mooy remplacer kooku waaj ñu seet wóolu gi mu wóolu farlu gi mu farlu ñu mu gëmee fekk ki mu gëmoon moom amul solo moom daal di ko yóbbu ci martaba yu kawe yooyu bi mu àggee ci martaba bu kawe boobu nag ba nga xam ne am na al fat bokk na ci ahlul fatxi lakbar bokk na ci ahlul fatxi lakbar mu gis ne moom kat sëriñam bee tubaab tàll amul solo mu dal di wëlbati ku jublu ci sun borom sun borom jëmm ji nga xam ne gannaaw yàlla moo tax ma aksi fii ma aksi ndax dama ko gëmoon di ko tërbiyew yéegal ko ci maqaama yu kawe yi borom nangu ñaanam yéegal sëriñ ba ci maqaam ko nga xam ne kon foofu sëriñ bi taalibe bi li ne ko lu tax ngëm gi kon ngëm lu am solo ngëm bu paasee lu ci tegu cofeel sopp sëriñ bi asiqu fi mahabbati ma bat maam tisaali amrihi xas wala ko sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u benn sàmm ñëw ne ko waaw Muhammad waaw kañ saa di taxaw mu ne ko loo xaroo saa ba di ko mu teg di ko laa mu ne ko man de xarawuma ko julli gu bari xarawuma ko euh, koor bu bari wala sarax su bari wala turu yàlla bu bari waaye nag sopp naa yàlla akub yonentam mu ne ko almaru ma aman ahabba nit ku nekk ka nga sopp lañ lay booleel nee ñu keroog saxaaba yi mbég dañu mbég moo xam ne mësuñu koo bég ci nga almaru ma aman ahabba kon sopp am na solo ruux yi dañoo bëgg mbokk ruux yu sell yi dañoo bëgg mbokk maanaam seen mbokkum ruux mu sell xam ngeen ni malaayika roox lañu te alquran dafa ne inna alladina qaalu rabbuna laahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaaikatu allaa taxaafu wala taxzanu wa abshiru bi jannati lati kuntum tuuaduuna nahnu awliyaakum fi lxayaati dunya wa fi laaxirati malaayika yi dañuy xaritoog nit ku jub ku sell dañuy xaritoog moom mu xam ko wala mu ñàkk koo xam buy ñaan dañu naan amin fuñ toll dañ koy ñaanal di faj ay aajoom ca la suñu borom nam lu ko waral xeetoo gi ñu xeetoo ci sell ci sell gi ba ci li tax ñu ne sëriñ boo ko amee nañ ko fexee roy ndax roy gi nga koy roy ba xawa a moom dara ci jikko moo lay gën a booleeg moom moo lay gën a boole xeetoo bi nga xeetoo moom ba suñ borom boole laa moom muy sa sëriñ benn xeetoo la boo ko royee nag ba niru ko donte ci benn bi ni nga xamee ne euh, niru moom dafa am kàttan ndax euh, suñu borom tabaraka wa taala turam yooyu yëpp ay melo la ku ci am benn boo xam ne niroo nga ko moom du la lakk ak noo mën a doon tax suñu borom du lakk ku niroo moom kon niroo lu am am solo la bi nga xamee ne kon euh, euh, xutbul xaw bi wala wàllu kaamil bi ca yow ma alastu bi suñu borom tabaraka wa fagee ñaari loxom ci ni yalla ci mom bu ñu dé wax ñaari da ñuy wax ak ay doom aadama motax ñu diko wax xam ngeen ne ruh ak dañu dañoo bokku ñu dara mu ñu gis ruh nit ki feeg jëmm la yàpp ak deret la ñu gis mu ñu gis mu ñu gis lepp lo xam itam ruh la bis ni ma ko wax man sànq bis bu demee ba rawxaani yam nak nag jismaani bu boba waaw léegi ki nga xam dafa bokk ci ñu màgg ñooñu bi suñu borom tabaaraka wa taala bayee ñaari loxoom ca na mu yàlla duñu fas mukk nag suñu borom dafa amee loxo ne ni mu ndax lépp loo xalaat rek suñu borom moom niroowul ak loola wuti na ak loola yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na ngeen waaru ci kéemaanam yi kawtéefam yi yi ngeen gis ak yi ngeen xam waaye du ngeen xalaat mukk ci jëmmam ndax du ngeen ko jox xaqam du ngeen ko mel ak na mu war a dal ne haulaay fil jannati wala ubaali wa haulaay fi naari wala ubaali ñii na lañ jëm sama yoon ñii safara laa lañ jëm sama yoon foofu nit ki daal di xalaat ne kon ci ñenn ñi raisonné naan ah, waaw kon nit ki moom gannaaw moom suñu borom ba mu ko bindee rek daf koo jëmee safara ah, luy luy bàkkaaram luy tooram bu def déedéet boo delloo seene suñu borom moom nekkul ci temps benn ba mu daataan def noonu gis na jëmm ji roogi bi mu ñëwee ci àdduna ba jëmm ji li mu jëfee ba jëf jëfi safara ba mu jëf ba war a dem safara kii dem àjjana it gisoon na ko ba noppi bi mu ko daataan bind ne kii na la jëm gisoon na ndax moom nekkul ci temps ci temps bu nekk la tiimandoo yépp kon nit ki ba mu tiimandoo ba nga xam ne bind naa ko xam te ëffagu ko ci la nga xam ne mooy doon jëmmi nit mu ngi jànd moom ba mu ju matee ci bi mu ne ba mu juddoo ba ni muy dundee ba ni muy jëf lépp ba keroog mu nekk ci sukuraat ba ba muy dee ba yow nga xam ne suul nañ ko ba mu lay kii laaj ko ci lépp la jàngoon mu dal di ko léegi mën na dal ne kii safara wala kii àjjana léegi li nga xam ne nag kon li ma waxoon ne xutbu xaw si boobu dana si Ahmad Bamba radiyallahu taala yow ma alstu suñu borom wan na ko ruu yi ànd moom yëpp muy xeetam moom nga xam ne dafay woote ñu wuyu ko woote boobu ak wuyu ba nit ki bu ñëwee ci àdduna bu jaamoo yàlla ba sell ba àgg ca àgguwaay ba dana ko gis mu mel ne démb la fàttali ko mu leer ci moom ba mu koy wuyu ak ba muy woote xam ne day jàlloog roo yi newoon ci seen kanam ci ci kanam ci gannaaw yi newoon ci ndeyjooram yi newoon ci càmmoñam jàlloog dañu ne law kushifa sirrul wali la ubida secret wali bu ñu ko feeñaloon nit ñi jaamu ko ko ci yàlla ñu ñu xóoti xóot ñu day waar moo nekk foofu lu dellu si kon rek jëm si borom digal ak lim mu tere Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu dafa jaarale nit ñi fa ñu war a jaar xam ne ne ñu wala nit ñi yoon wu jaar nit ñi mënul caa jaar tàmbalee mooy jàng lislaam ba xam ko mu njëkk ndax awal ma yajibu alal mukallifi tasxiixu imaanihi na wér gëmam na am aqida boo xam ne maanaam ngëm boo xam ne ngëm gii la sharia nangu ngëm gii mooy gëm yàlla dëgg mu ne képp ko aju ci man xam lu diineem ba xam ko man naa dinaa leen téere yoo xam ne li ngeen war a xam lépp nekk ma daal taalif ci tawxiid taalif ci tasawuf ay téere léegi lu ci nekk mu jaare ko ñi nga xam ne nit ki bëgg lislaamam wér ba noppi nag mu jëm ci boroomam na mu war a jaare ñu xottee noonu yoon wa bi mu daataan tàmbali tërbiye bi bind na téere tawxiid bari téere fiq bari bi nga xamee ne mu bind ci tasawuf ndax li mu bëggoon mu fi saxoon ba léegi waa Sénégal yëpp texe ndax bu fekkee ne sàkk na daara yoo xam ne dañuy tërbiyee nit ñi di gis ñoom jikko yu bon yi teqale leen ak waa àdduna ba nga xam ne bëgg àdduna gu ëpp gu ne seen xol bëgg daraja ju ëpp gu ne seen xol bëgg alal bu ëpp gu ne seen xol noonante wala ëpplante wala kañaan lu nekk seen xol ñu ber leen sàkkal leen kilifa goo xam ne dafay liggéey ba wàcc si ak yam yëpp dañ ay yibam yëpp dañ am ay qualité rek la am nit ki milieu boobu xam ngeen nit moom milieu bu nekk man al wasat wala muhiit fi mu nekk moo koy suut wala fi mooy tax ñu naan lu yàgg ci njaw di njaw ñooñu mu sàkk leen kilifa googu ñu nekk foo xam ne kenn du fa moy kenn du fa waxi adduna kenn du fa caaxaan kenn du fa fo kenn du fa ëppalante kenn du fa wut dara leen rek di seen itte mooy nañu fete nañu àggee ci yàlla nañu xame yàlla ni ñu xame sëriñ bi bu ñoo ñooñu matee kenn ku ci nekk ñu yóbbu la ci béréb mboole la ak mboolewaati ñooñu ñu mbooloo moom itam bu ñu demee ba mat moom it ñu kenn ku ci nekk ñu fab la yóbbu ci béréb bu yàggee réew mi daj liggéey boobu la def na ca ba xam ne suñu borom wàcce na ko tabaraka wa taala mu war a ñibbi ay xew-xew yu bare ngi ci diggante boobu yoo xam ne ci ay kàddoom la jóge la ak ay taawilaat ak ay seede yoo xam ne jëf yu ñu fekkee mu xew la dana gudd ndax fii dañoo limité tax bi ñu may te dañoo prévoiroon ay laaj laaj yi li may wax buñ la laajee lu ma xam ma wax ca la ma xam mm, waxtaane woon naa ko dañu ne mag ñi dañ leen wax noonu dañu muslu ci fóori judul gat fóori judul gat mooy ki nga xam ne bu ñu ko laajee lu mu xamul it mu féetal wax kooku moom yàlla nañu ci yàlla musal li nga xam ne nag moo nu waral mënunoo gàntu ay aaya ak i xaddis la alquran dafa ne inna lazina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda min baadi ma bayyannaahu linnaasi fil kitaabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul laa'inuun ñi nga xam ne dañuy nëbb xam-xam bi nga xam ne wàcc nañ ko ci téere bi gannaaw ko ñu di leen ko laaj ñu bari wala ñu war koo xam ne ne wuñ ko ñooñu de suñu borom dana leen rëbb rëbbeekat yépp dana leen rëbb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xamee diine ji daañu la laxawabe laxaa bi safara yowmal xiyaam alquran dellu ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi diin wa a qawmahum iza raja'u ilayhim la'allahum yahzaruna muy ñaari davoir kuréel bu nekk yàlla suñu borom ngir àdduna mag ñu def leen a bëgg loo mbay xiir leen ci wala mu sakkal leen bunt yëpp ba mu def mbay ñuy bay ñii lakk mburu ñii euh, aw ñii dawal oto ñii tabax ba nga xam ne lu nit soxla rek danga gis ko koy def waaye nit ki bu bëggoon a bayal boppam ba li mu bay ñor mu bojjal ko boppam toggal ko boppam ràbb yi ba ràbbal boppam yére yi muy sol ñawal boppam defaral boppam dàll yi dana doy waar suñ borom nag séddale noonu organiser àdduna ba mu mel noonu mu ni nag lu tee kuréel bu nekk am ca bu ñuy demee fii def yi ñuy def lii mu am ca nag kuréel boo xam ne dañuy soqi ko dem jàngi lislaam mu muy devoir bu njëkk bu ñu jàngee ba noppi bu ñu dellusee wala nusuru xaw mu isa rajo ilim bu ñu dellusee nañu waare nañu jàngale nañu yeete nañu leeral muy deuxième devoir bi bu fekkee dafa jàng bu ñëw te deful loog loolu benn warugar la def beneen warugar bi ci des war ko booy mat xeamee lu muy lay ndax suñu nee na du laaj ñi xamul ne lu tax xamu leen lu dul ba te mu laajee ñi xam est-ce que nangu woon ne nangu woon ngeen a xamle bu ñu nangoo xamle nag te kenn ñëwul di laaj bu boobaa yoon waaw waxtaan ñu ko ay yoon euh, ndax euh, xam-xam si boppam dafa màgg dafa yokk lool limam Malik radiallahu taala anhu laaj nañ ko ñeent fukki laaj ci benn jotaay fukk ñett la ca tontu ci des mu ne laa adri ci des mu ne xaw ma xaw ma ko ah, hadis di développé di màgg ñi di ko étudier di ko dajale di ko segg di ko sellal ba imaam ahmad ibnu hanbal ñu laaj ko ci benn jotaay juróom benn fukki laaj laaj bu ci nekk mu tontoo xaddasani fulaan an fulaan an fulaan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga an euh, léegi xam-xam dafa yokku léegi nag kon fekk addunaa ngi continuer di wéy doomu aadama man manam di yokk gis-gisam di yokk xam-xamam di yokk muy li ci gën a bari muy yokkoo ci genn wet mu des geneen wet wetu diine gi ak wetu adduna ñaar yëpp dañu ne li wax ne masih dajjal su ñëwee benn bët lay doon day nekk ku bor ñu interprété ko ne nit ki dafa war a am ñaari bët bët bi mu xool àdduna ak bi mu xool alaxira kon àdduna bi bët bi mu koy xool farata la joo xam ne bu bu àndik yéene jaamu yàlla la beneen bët bi ngay xool alaxira ngir nga ragal yàlla xam fi nga war a jaar ak lépp loo xam ne jëf nga ko la mu lay dikkal ëllëg ñu ne kooku nag bu ñëwee moom benn bët lay am maanaam àdduna rek lay xool matérialiste yi lay doon koo xam ne moom mbirum yàlla moom waxu ca dara kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu seet ah, na ko wax ci anglais leer na rafet na jur na daana ko doyoon na nekk waxtaanu tey kon nag bala may jàll ci laaj yi damay li nga xam ne moo lu mujj wax dama koy def muy laaj bu njëkk ñu soog dem ci laaj yi ñoom sëñ Saam ak borom xam-xam yi fi nekk wax ci Sëriñ Tuuba naka la doone Xaadim Rasuul ak Xaadim Rasuulam boobu lu tax eggagul ci yeneen gor yi nga xam ne moom fi tudd lu mel ne Pakistan lu mel ne Indonésie yow lu mel ne Inde foofu yëpp ay jullit dafa nekk te alxuraan dem na fa te loolu eggagul ba kon Sëriñ Saam tontu question borom xam-xam yi fi nekk ñu jàll ci ci la salaamaaleykum rahmatulah laaj bi njëkk bi mooy lan la nekkee ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la nekkee ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk sallallahu alayhi wa sallam am na ci ay secret yi nga xam ne moom lank lislaam taxawal ko du jóg ci jamono day nekk ci nit ba mu mu nekk ci keneen kenn ku ci nekk nag kem la nga ca doon ci moom donn gi mu ngi aju ci benn coobaral suñu borom mooy jiitu lépp ñaareel bi bëgg ko bëgg ñetteel bi sonn gi ngay sonn ci moom mu gënal la lépp nga bëgg ko ba xamatoo leen dañu ne suñu borom tabaraka wa ci ñu bokk te jig bi nu waxoon ndax mu jëddit moom day beesal loo ràppoon ci xol yi ni ma ko waxee woon ki nga xam nag dafa doon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mbirum baatin la moo xam ne charte yi nit ñi xamuñu ko suñu borom moo koy seet moo koy xam féetale fa nit doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ca kem la nga ko war a doon ne ñaari xeet la benn bi doon na ko ci baatin rek te doon na ko ci zahir ñaareel bi nga doom na ko ci baatin doon na ko ci zahir te kem na mu yelle ci aji doon na ci ñu ne ki nga xam ne dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw taxawaayam amee secret l'islam bu fekkente ne daf koo doon na ci baatin te doon ko ci zahir ku ko umpale du la wàññi dara day mel ne adamu buluuxu daawa yonent bu ñu am foo xam ne enseignement àggu fa wala mu àggu fa fekk ñu déformé ko ba nga xam ne ku ko dégg du tax nga sonn ci gëstu ndax gëm ne mën na nekk dëgg ki nga xam ne nag daf koo doon zaahiran wa baatinan ci xam ni mu yàlla ci moom dañ koy wooteloo daf koy fésal kooku nga xamee ne xeetu nit wamu feeñe xeetu nit wamu feeñe te ñëw ngir xeetali ñëw ngir jubbanti ñëw ngir jàngale ñëw ngir leeral xeet woowa nu ñu gën a réere nu ñu gën a dënge la sa kàttan di ëpp buñ seetee ne charte bi jiitu mooy coobare suñu borom doomu aadama yi mënuñ ko xam ci li koy xam ne mooy moo am bu amee ñoo xam ne lii dafa soob suñu borom kii dafa soob suñu borom mu tànn ko la tax mu tàng ko moo ko xam mooy charte bu njëkk bi ñaareel bi mu attan ko ak tam maanaam ci li nga xam ne ci secret bi mooy tëjee secret bu lislaam ci mbindeef yi ñetteel bi ñu yéene ko dañu ne mag ñi dañu wax ne bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa yër xol yépp sëñ Tuubaa gën ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dénk ko secret boobu la te fooy buñ ne mu jaddit la yaqutbul xawsu la xaadimu rasul moom mosu ñoo dégg benn mbindeef boo xam ne woote nga ko wala ñu tuddee la ko moom si ñu xam ko muy leneen bu fekkente ne nag Sëriñ Tuubaa dañ koo yegal ci xeet woo xam ne dafa mel ne xeet nit ku ñuul yi fii ci Afrique xeet yi njëkk ya maanaam ñu njëkk ña ca nit ñu weex ña dañuy nit ñoo xam ne dañoo farlu jàng am xam-xam nga xam ne kooku bu ñëwee dañuy bind ci moom ay téere yu bari di xam li mbiram tas ko itam téere yi di ko jaay fu nekk ñi nga xam ne dañoo am xam-xam tey dégg mbiram ñu yël téere yooyu bu ko defee ñu gëstu muy gën a tasaaroo léegi dañuy wax ne mag ñi ñi jamono woon ak sëñ bi wala ñu ñëw tuuti gannaawam lu bari mu wax ne ak sàggam ndax loolu lay mel ne que ñàkk teggin waaye ba ñu waree bind ci mbiram bu ñu ca bindoon gëstu te ñu bari def ko ñu mën a bind ñëpp def ko foofee euh, ngay wax Pakistan bi yooyu dana fa àggi mën naa nit ba léegi dana fa àggi ndax sëñ bi ñu fi dikkee léegi dafa yàggul ñu fi jógee léegi dafa yàggul dafa te jamono dafay wéy dafa yàgg lool léegi bu fekkonte ne nii sëñ Bassirou def ak sëñ Amadou Lamine Diop Dagana ñoom ñaar kenn ku ci nekk borom xam-xam bu doy nga bu doy waar bind nga ci moom te kenn ku ci nekk la nga bind bokkul li sa morom bind ñeneen lu ma téeméer nit mën nañoo bind te duñ bokkul ak yi sax buñ seetee liñ ci bind te bokkul li sëñ bés yi bind bokkul